ndax soo nee daarib tegtale na maanaami ak ki ko def te mooy nit ki nga xam ne moom nga war safe loolu waaye darbun maanaami rek la tegtale tegtalewul faayil dara luy niru faayil ak ki ma fool nekku ci waaw kon nag ci la kaw loolu warul woon mu doon xaal ci xiyaas waaye nag teewul wa masdarun masdar mu nakkarun mu ñu nakkiraal yaqaw dana tabbi dana ñëw xaalan di xaal bi kasratin ci bare lool ka qawlihim jaa fulaanun baxtatan masdar la ay mubaaxitan di aji bette baxtatan masdar la ñu ngi koy tawil sufaay ah dégg nga talaa aksi na zaydun baxtatan ay mubaaxitan wa gannaaw geetam xaal dafa war a doon nakira boroom xaal di maarifa ndax xaal boroom xaal dañoo niroo sifaak mawsuuf dañoo niroo sax mubtada xabar ndax xaal itam xabarun la an saaxibil xaal jaa zaydun raakiban faqat axbarta bi ruko bi an zaydin du dëgg comme yow mu doon zaydun raakibun ci mubtada xabar waaw kon li doon li cosaan li mooy ni nga xamee ni nakira warul doon mubtada naka noonu nakira warul doon boroom xaal ndax li anna alxaala sifatun min asifaati aywa te mubtada dafa yàlla doon maarifa li annahu dégg nga maxkumun alayhi fala budda min tasawurihi qabla alxukmi alayhi kooku dafa war a nekk maarifa xabar da dafa waroon doon nakira ci cosaan li annahu sifatun la waaye boo ko taarifaale yutawahamu annahu sifa sifatun naatun soo noon zaydun qaimun nga ne zaydun alqaimu bëgg ca xabar kenn du la ko terekat waaye dañuy daal di defee ne da nga ni Seyd ma taxawoon day ñu di la déglu dafa xabar di këgul looloo tax xaal nekk nakira soo ne Seydun qaa'imun kenn du defee ni naat la dañu xam ne nett xabaar boo ko nettali la moo tax ñu tudde ko xabar walam yu nakkar xaaliban zul xaali kenn du nakkiraal boroom xaal lu gën a bare dégg nga in lam yataaxar aw yuxassas aw yabin min baadi nafyin aw mudaahihi kala yabqi mruun ala mriin mustashila kon dañuy dellu ci musawiqaatu libtidaay bi nakira nu def ko musawiqaatu dégg nga jaali saaxibil xaal nakirata la nga daan taxsiisoo ba nakira man nekk mubtada soo ko taxsiisoo nakira man nekk boroom xaal dégg nga moo tax xaaliban nag laayu nakkar in lam yataaxar ndegam mujjul su mujjee mën na ko nekk dégg nga dégg nga naki li mayyata muuxishan talalun yaluuxu ka annahu xilalu bayt la li mayata muuxishan talalu li mayata talalun nakira la xaalab daal di muuxishan dafa mutaaxir la du dëgg talal boroom xaal ji gëmma mutaaxir la xaalab dawlu ko léegi mën na nekk mubtada du loolu doon daana tax nakira mën a dekk mubtada dégg xol waaw shahid la rek boo indee benn sax baax na in lam yataaxar waxal
wa ansal sibawayhi boo ko bëggee wax ko bu leer wa bil jismi minni bayyinan wa bi dikri minni bayyinan bayyinan law alimtihi suxuubun wa in tasahadi ala na tasahadi la suxuubun yenan law alimtihi suxuubun wa in tas tashhidi waa kay da nga ne wa in tashhidi rek wa in tas tashhidi al ayna tashhadi dafa ni nee na ay ay ak xoyiku ak xoyiku li ñu naan diw dafa xoyiku yàpp wi maanaam yaram wi dafa om feebar tax wa shahaba lawnu ida taxayara min juuci naw min maradin qad itara shahaba lawnu shuxub mooy taxayuru lawni min al juuci wala al marad mooy ak xoyiku wala fa naan diw dafa xoyikoog dafa dégg nga soppiku yaram daal ngir xiif wala feebar ak i coono loolu mooy shuxub mu ni nag wa bil jismi min nii nekk na ci sama yaram wi suxuubun ak xoyiku law alimtihi soo ko xamoon bayinan mbir mu muy aji biir moom suxuub suxuub du nakkiral bayinan xaalan jiitu ko looloo ko daganal suxuubun xaala kaw ni suxuubi bayinan su ne woon suxuubun bayinan loolu du dagan wa in tastashidi soo defee se- soo seedaloo al ayna eh, sa bët tashhad wala sama bët man soo ko seedaloo tashhad mu seede waaw soo xoolee bët yi e jooy gi muy jooy ngir ñàkk la ñàkk a jokkoo ak yow moom mu daal lay seede mu seede yaram weet xoyi ko gi mu xoyi ko te lépp yaa ko waral sore la moo ko waral lo day xasal ci ndaw soo comme noonu rek li may yeta moo xisanta aw yu xassas wala feeg amul taxsiis ndax mubtadat bu doonee nakira ma am taxsiis ci laafe wala sifa daana tax mu mën a nekk mu mën a nekk euh, mubtada du dëgg rajulun karimun ah, indana sifa si dong nga tax mu mën koo ne wala bil idaafati danañu ko misaale ñoom xamsu salawaatin waaw fiha yufraqu kullu amrin xakimin ah, amran mënu nga kullu amrin nakira la amrin xakimin naat ca tax mu mën a doon amran min indina maamuran aw yadin wala féeg bin bir wala ndéem lam yataaxar walam yuxassas walam yabin ay lam yadhar ah, min baadi nafyin aw aw mudaahihi aw mushaabihi nafyi niki eh, eh, listifhaam ak eh, listifhaamu linkaari yooyu moog naf yu ñoo niroo looloot bu nakira dikkee ci ñoom ni mu daganoo ne mu doon mubtada lay daal di dagan ba tey eh, mu doon boroom xaal wa ma ahlakna maa mi mooy naafiya min qaryatin kon nakira la ah illaa walaha lu dul mbir mum ñeel na ko jumla walaha waaw wi waawu xaal la jumlay laha illaa walaha kitaabun loolu jumla jooju mooy jumlay xaal waawu xaal bi moo ko tegtale aw mudaahihi wala lu niroog nafyu ni kil istifham ah hal rajulun indaka mu daal di dagan ah niki misaalam misaalu lu niroog moom nahyu laa yabgi bu bew imru un nakira la alamri in ci jeneen waay laa yabgi imru un xaala kawnil imru mustashilan mbir mu muy aji yombal tooñ ga bañ koo konte muy dara léegi eh, nahyu gi dawlu ci imru un moo ko dooleel ba tax mu mën a nekk boroom xaal ah, wa sabqa xaalin ما بحرف الجر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد loolu nag nee na sabqa xaalin jëkk gu xaal jëkk maa boroom boo xam ne boroom xaal boo xam ne jurra bi xarfin dañ koo jar ak xaraf ah bu la neexee nga def ko sabqa mafool moo tax ñu nasab ko da nga naan waqad abaw bañ nañu ñoom nuxaat it tere nañu sabqa xaalin jiitu gu xaal di jiitu maa boroom xaal boo xam ne qad jurra bi xarfin xaraf la ñu ko jare nee ñu baat bu ñu jarak xaraf warul nekk boroom xaal ñu tere ko ibnu malik nag feeñal foofu mazhabam mooy benn place ci ñetti place yi alfiya yi ibnu malik feeñal mazhabu boppam mu ni man wala am nahu duma ko tere kenn ndax loolu faqad wara dikk na fi qawlihi taala wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi kaafatan xaal la boroom xaal jëm mooy lan linnaasi te dañ koo jarak xaraf nee na loolu wàññiwul dara laa am nahu mu feeñal mazhabu boppam foofu jàmbaar la di moom doo nga ko ñeme ana ku ko ñeme keneen ñemewu ko da nga ah si booy de nangam la waxaali nangam waaye man nangam ñu xam ne yow ponkal nga mu bokk ci ndanja may naaw yi ah Ibnu Maalik ga ko sañ waaye nag ci tawaadu am ñeenti ñetti yoon dong la ko def ci àll bi benn baa ngi benn ba mooy ca damair ba mu naan ah wax wattisaala axtaaru xay xayri ixtaara limfisaala benn ba mooy ba mu ne wa awdu xaafidin ala atfin la daa damiri xafdin laaziman qad jucila mu ne walaysa indi laaziman id qad ata fi nasri wa nadmi saxiihi musbata looloot feeñal na foofu ba xam ne ñetti place yooyu day la ma sa waxee waxu boppam ci ah ci damir dafa ni oh, loolu tudd naa ko wattisaalan axtaaru xayri ixtaara limfisaala boobu laa jëkk a tudd benn ba mooy bii wala tujis xaalan min al mudaafi la ci ban ban ban fan la ko def shahid xanaa du taaddudul xaal ngay wax xaalan min almudaafi la illaa ida iqtada almudaafu amala aw mis aw kaana jusa ma lahu udifa aw misla jusihi fala taxiba wala tujis bul daganal xaal min almudaafi ilayhi mudaaf ilayhi warul nekk boroom xaal lu dul illaa ida iqtada lu dul bu sàkkoo bu tegtalee bu sàkkoo almudaafu mudaaf mi li laaf dafa sàkku amalahoo jëf ca xaal ja mooy amilu xaal ja ndax xëy na masdar la masdar mën na jëf-jëfu feen loolu su ko defee ni ki ilayhi marjiukum jamian marjiukum masdar la ismu masdar ah aywa marjiukum kum ji mooy mudaaf ilayhi mooy boroom xaal ji jamian mbir mu ngeen di way dajaloo yéen kum kon marjiu nag maanaam feel bi ci des moom la nasabe jamian du dëgg kon bu fekkee mudaaf mi moo nasab xaal loolu mën na nekk ni ki marjiukum jamian lu ko mooy mudaaf ilayhi waru doon boroom xaal dégg nga jaa a xulaamu hindi doo ca teg ni daaxikatan mu dellu ci hindi mi mudaaf ilayhi te te a mudaaf mi du aamil ndi li si mu jaamit la xulaam loolu moom daganul jaa a xulaamu hindin daaxikatan moom hindi mudaaf ilayhi loolu daganul waaye marjiukum maanaam ci yàlla la seenug dellu jamian mbir mu ngeen di dajaloo ba ngeen di dellu ah masdar la moo na kooku moom dagan na juz'a ma udifa lahu wala muy cër ci lañu ko laafat wa naza'na ma fi sudurihim min xillin xaala kawnihim ixwaanan ixwaanan hum jooju mooy boroom xaal ji mudaaf ilayhi la waaye nag mudaaf mi day juz'u ci mudaaf ilayhi ah sadru du baadu la ci linsaan dën benn cër la ci nit maa fi sudurihim xaala kawnihim ixwaanan mudaaf mi ci mudaaf ilayhim la bokk kon dafa mel ni ki lenn la mel na moomu noonu wa nasaanaa maa fihim rek lay lay la mel ni loolu ixwaanan xaalun min adamir almudaaf ilayhi te wahiya te mudaaf mudaaf mi mooy sudur wahiya juzun min almudaaf ilayhi aw kaana juz ma lahu udifa ni ki maa fi sudurihim min xil aw misla juzihi wala mu yem ak juz ya fi talaazumi nga xam ne du ñu taqoo tàqalikoo ni nga xamee ni kullu du du tàqalikoo juz um ni ki tey ani tabi millata ibrahima xanifan li an millatu shaxs laa tufaariqu shaxs nit lii diineem du doon mbubb moo xam ne mën na ko summi léegi ci suba ngoon mu solaat wala beneen bis déedéet day ànd ak moom faw millatu ibrahima dafa yelzamu ibrahima ka juz kal juz i minhu moo tax kon ibrahima mudaaf ilayhi la waaye teewul mooy boroom xaal ji xanifan moom ibrahima mbir muy aji jub wali si yoon yu dëng yi aw mithl بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا صيد دعا والحال إن ينصب بفعل xaal suñu ko nasabee ak feel joo xam ne mutasarrif la du jaamit aw sifatin wala ñu nasab ko sifa soo xam ni ashbahatil musarrafa niroo naag feelu mutasarrif ndax ismu faayil la wala ismu mafool ak yu mel noonu kon fa jaaizun lu dagan la taqdimuhu jiitalam doora indi sifa sa ndax sifa sa am na dooley soppandiku ci ah maamulam nu ko neex feet dawal wala mujj niki misaalum xaal ji ñu nasab ak sifa mooy boo ne nga ni musri'an daa raaxilun daa kii raaxilun aji dem la raaxilun mooy sifa si nga xam ni ma ngi mel ni ko ne yarxalu sifa si musarrif la ne niroo naag fi'il ji mutasarrif raaxilan aji fa bu dem la musri'an mbir mu mu di aji gaaw misaalu fi'l zaydun daa ñaan na xaala kawnihi ba muy ñaan muxlisan di aji sell yooyu ku ci ne gis nga ni mu dawale xaal ji musri'an za raxilun muxlisan zaydun daa da fekk li mu jëkk a tudd mooy moom la mujj a misaal wal xaalu in yunsab bi fi'lin mutasarrif ni ki tey zaydun daa muxlisan nga dawal muxlisan wala ñu nasab ko sifa su ashbahatil musarraf ni ki za raaxilun muxlisan nee na kon mën nga ko dawal wa caamilun dummina macna alficli laa xuruufahu muaxaran lan yacmala aamil nag su fekkee dëgg la yor na maanaam fiil ba tax na mën na jëf-jëfi fiil ci nasab xaal nee na waaye nag xarafi fiil nekku ci ni ki xuruuful aamila ak lu mel ni ismul ishaara ni ki tilka ah ndax bi maanaa ushiru ismul ishaara su jëfee bi maanaa fiil la ndax bi ma boo ne tilka hindu waaqifatan dafa mel ni da nga ni ushiru ilayha soo ne inna bi maanaa wakkidu anna hakada ba mu jeex amil boo xam ne yor na kat maanaam feel waaye laa xuruufahu yoruli xarafam kon du am doole ja feel am su dawloo daal mën a nasab xaalam mu topp ci moom su ko xaal ji dawloo mënatu ko nasab kon lañ yamala du du jëf mu axaran di aji mujj kon du mën a tee nasab xaal ji dawlu loolu lan ni ki lan tilka fa innaha fi maanaa ushiiru ak layta fa innaha fi maanaa atamanna ka anna fa innaha fi maanaa ushabbihu wa zarfu wal majruur seen maanaa mutaallaq te mooy istaqarra ba tey maanaam fiil la amee dégg nga su ko defee bon man nga ni tilka hindu mujarradatan wala waaqifatan daal mu gën rafet tilka hindu waaqifatan waaw walayta zaydun layta zaydan amirun amiran aku axuuk layta zaydan xaala kawnihi amiran axuuk waaye nag su dawloo du mën a nekk zaydun fi daari jaalisan wala nga ni ka anna zaydan raakiban asadun waaw waaye doo mën ni wa zaydun jaalisan fi daari mu daal di dawlu ndax amil ji te mooy istaqara ji fi daaru aji jaar ak majruur maanaam mutaallaq ba ba mu aju niru na feel waaye nag yurul doore feel ju ñu tudd du dëgg moo zaraf kon ka tilka layta ka tilka wa ka layta wa ka anna wa nara da wa naa dara néew nag fu ñu ko dawalale xaal naxwu saidun mustaqirran fii xajar said day fii xajar maanaa ma nga ca xajar istaqarra fii xajar mbaa kainun fii xajar hajar laa wax de mustaqirrun fii mustaqirran fii hajar turu dëkk la turu place la nee na kon su ko defee ka istaqarra ji mu aju jaarag majruur ji niru na feel kon ndax fi mu ajoo taxawaay du maanaam fe néew na nag loolu teewul dégg nañu ko ci lu mel noonu am na ci waxu arab dafa bariwul lu doon cosaan daal lu doon bare daal saidun fi hajar mustaqirran wa naxwu zaydun mufradan anfaau min amrin muaanan mustajaasun lan yahin dafa am lu ñu daan wax ñoom dañu ne afalu tafdil tàng bi muy bi ca min di jokku jaamit lay doon comme jaamit lay doon nag xaalam waru koo mën a dawru ci qaayida bi ñu doon wax léegi ndax lu lu tax ñu ne anfaaw tafdil ñoom ñu ne afdal tafdil jaamit la adamu tasarrufam ci bo ca jubloo ñaar wala kenn góor wala jigéen da nga naan zaydun akramu rajulin hind akramu mraatin alhindaatu akramu nisaain seetal akramu akramu dong nga wax loolu la niroo léeg jumóot looloy jumóot gi ci maana su ko defee ñu setti ca nag dara su fekkee ni menn afalu tafdil bi dafa jëf ci ñaari xaal ahaduhuma mufaddalan ala axara du dëgg aywa fi xaalin doona oxra wala sax muy lenn loo xam ni mufaddalun ala nafsihi fi xaalatin doona oxra kooku su ko defee afalu ja benn xaal ba mën na ko dawlu mu nekk ci digg bi beneen xaal ba mujj kon noonu lañ koy def waaye du tax ñu dawal ko nag toftale yaari xaal yi loolu moom la misaale wa naxwu zaydun mufradan anamu anfau min amrin muaanan lu mel noonu dane mustajaazun lu ñu daganal la lan yahina fil arabiya loo xam ni faiblessul ci wàllu arabiya gi arabiya fasiha la zaydun anfau anfau du dëgg nëbb na huwa xaala kawnihi mufradan kon xaalam dawlu na ko ah dégg nga waaye la ko def ah mufaddalun ala gayrihi fi xaalayn bi ictibaarayn mufad anfau min amrin xaala kawni amrin muaanan zeyd daal ba mu nekkee ku beru moo gëb ëpp njëriñ amar ba ba mu nekkee ku ñu dimbali di jàppale ko zeydun xaala kawni mufradan anfau min amrin xaala kawni muaanan fa zeydun mufaddalun ala amrin fi xaalin dégg nga lu mel noonu naka noonu wala muy mufaddal ala nafsihi sax ni ki zaydun qaa'iman ahsanu minhu qaa'idan zayd menn moom ci bi mu taxawee la gën a rafetas bi mu toogee zaydun qaa'iman ahsanu minhu qaa'idan kon itam yaari xaal yi daal boroom xaal bi mën na dawal benn bi benn bi mujj ko والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد xaal nag ba nga xamee ni moog sifaat yëpp a yem te lenn lëf mën na am sifa yu bare kon benn boroom xaal mën na am xaal yu bare marratan jaa zaydun raakiban daaxikan ak leneen lu xaal ya bare bare mën na nekk ni nga mën a waxee ni zaydun raakibun daaribun jaalisun muy ay xabar xaal ak xabar ñooyam ci loolu ndax lu ci ne si fes borom la xad yaji usa taaddudin li mufradin ñeel kenn ni ki misaal mii nu wax léegi faalam xamal loolu jumlay li itiraad la moom faalam li mufradin wa xayri mufrad ak lu dul mufrad lu dul mufrad moo mel ni seen wax ñu naan laqiitu laqiitu zaydan musidan munxadiran wala laqiitu hinda musidan munxadiratan waaw su fekkee ne nag lënt amut ni ki kii muzakkar ak mu annas laqiitu hinda musidan fekk maa ngi yéeg di dem munxadiratan fekk moom muy wàcc su lënt amut kon lisim ji nga jëkk a tudd xaal ju mujj jalay moom ji nga jëkk a tudd su ko defee aywa ju ñaareel ji moom aywa door a sës ak xaalam kon ndax su kenn ki sëseeg xaalam rek ñu xam ni ka ca des moom moom moom lënt amu ci nga def noonu su lënt amoon su lënt amee nag ah ñu waaw bu lënt amee bi nga jëkk a tudd da ngay indi xaalam sësale ci da ngay maanaam moom loolu ngay jox xaal bu jëkk ba moom ngay xaal bi nga jëkk a tudd moom ngay jox lisim ji nga mucc a tudd ni ki tey boo nee laqiitu daje naag zaydan tudd nga yaari lisim yow yaa di faayil lisim nga ta damir bi nga ne laqiitu hind musidan maanaa kon zayd moo doon dem mun xadiran man ma doon wàcc dégg nga su lanta naree am kay kon ku ne na sës ak xaalam rek amaa ku ne sës ak xaalam dara newu ci su fekkoon ne da nga ne laqiitu zaydan laqiitu musidan zaydan munhadiran kooku dana leer ku ci ne xaal bu ci ne den ak borom kon nag xaal daal dana doon mutaaddit ci kenn dana doon mutaaddit ci lu dul kenn laqiitu zaydan musidan munhadiran musidan zaydun moo moo ko moom yow mi dawlu woon mooy damiru laqiitu moo moom munxadiran waaw su fekkee lant amut ni ko góor ak jigéen la nag baax na wa aamilu lxaali biha qad ukkida fi naxwi laa tasa fi l ardi mufsida aswu moo di achaddu lfasaad waaye kon aswu mooy fasaad ñoo bokk li nga ni nag dafa junji wala taasaw fi l ardi mufsidin kon mufsidin xaalun muakkidun li aamilihi ndaxte ifsaad moo di aswu du nag ni ki tey boonoon laa tadrib zaydan daariban kon xaal muakkid rekk la xad ukkida xad wa aamilu aali xad ukkida bil xaal biha ak xaal ja fi naxwi lu mel ni laa tacsa fi l ardi mufsidan isharatun ila qawlihi taala wala tacsaw fi l ardi mufsidin fa inna al aswu huwa al fasaad wala sax ñu faf bokk lafz wa arsalnaaka linnaasi rasulan rasulan xaal la ci arsalnaaka loolu ñoo faf bokk lafz kon bon rasulan dafa taakid arsalnaaka xaal mu akkid lañ koy wax waaye wa in tuakkid jumlatan fa mudmaru aamiluha wa lafzuha yuaxaru xaal mën na feddali jumla waaye nag kon su boobaa dégg nga la ko nasab dañu ko xadaf te kon lafzu xaal ba jumla jaa koy dawlu nag kon foofu xaal ji eh, dégg nga du mën a jiitu wa in tuakkid moom xaal jumlatan fa aamiluha li ko nasab mudmar la lu ñu xa- lu ñu xadaf la wa lafduha te lafdu xaal ja yu axaru an il jumla dégg nga mel ni ki tey boo ne zaydun axuuka atuufan mbaa atu axuuka raximan wala muinan du dëgg zaydun axuuka ka atuufan wala raximan wala muinan zaydun axuuka diw sa mbokk de kooku des na ca war a dégg maanaam dana la yërëm lu mu néew néew am na ci yow yërmande diw de sa mbokk du kenn du ca war a dégg maanaam yoral na la ëmbal na la jàmm ak yërmande nga ne nag atuufan mbir mu mu di yërëmekat kon ah, nee na bu fekkee dafa feddali maanaam saydun axuka ndax bi mu ko waxee rek des na ci foog ni nekk na a- atifan alayka aywa soo nee atuufan gannaaw ga da nga feddali mat munu jumla ji kon axuquhu atuufan axuquhu ji ko war a nasab mudmar ay maxduuf la wa in tuakkid jumlatan fa fa fa ah, aamiluhu ah, mudmarun aamiluha mudmar wa lafzuha yuaxaru an il jumlati moo tax doo mën ne atuufan zaydun axuuk wa mawdiu lxaali tajiu jumla ka jaa zaydun wa huwa naawin rixla ma nee na wa tajiu dana dikk jumlatun jumla mawdi al xaali bu fekkee ne da ngaa nasab mawdi ul xaal loolu daal moo gën dañ ko war nasab wa tajiu dana ñëw jumlatun jumla mawdi al xaali ci barabu xaal di doon jumlay xaal ni ki jaa zaydun wax wate moom naawin ku yéene la rixlatan ak déparat fa bu dem nu di ko firee laxas léeg-léeg ah, kon jumlay huwa naawin mubtada xabar jooju jumlay lisim jooju mooy xaal moo tax kooku nag dafa war mu ànd ak waaw mu nekk raabit damir bi nekk ci jumlay xaal dellu ci borom xaal ja raabit la ñu koy wax ni ñuy waxe damir ji nekk ci jumlay silas mawsul tudde ko aid ah, su ko defee nag jumla ji léeg-léeg dana am raabit léeg-léeg du ko soxla maanaa maanaa dana aajo waaw léeg-léeg du ko soxla wa zaatu bad in bi mudaaricin sabat xawat damiran wa min al waawi xalat su fekkee jumla ji fiilu mudaarico la mooy njëlbeen ga kon raabitam lu mu war a doon damir ju dellu ci boroom xaal ji nga ni jaa zaydun yadxaku huwa ji rek mooy raabit waaye kooku xalat ne wéet na min al waawi ci waaw du mën ànd ak waaw ba tax na eh, soo ci gisee waaw dana la wax ni beneen taawil moo cay am xawat damiran day amee damir waxalat mu wéet minal waawi nga ne jaa zaydun yadxaku warulaaxu wa yadxaku ñu ni ko lu mel noonu buñ ko gisee ci waxu arab te gisees na ko mu ni wazaatu waawin baada hanwi mubtada lahu lmudaari ajcalanna musnada wa wazaatu waawin jumla jëy boroom waaw jumlay xaal bu dee boroom waaw in wi nattaleel mubtada an baadaha ca gannaaw eh, ki- ma- ci gannaawam du dëgg eh, soo ne jaa zaydun wa yadxaku kon na nga nattale ni wa huwa yadxaku la de waj alan nga def mu daari ama musnadan muy lu ñu wéer la hoo jëm ca mubtada ma mooy jumlay fi'il jumlay fi'il ji mooy xabaru mubtada ma su ko defee mu soppi ku di xaal ji jumlay lisim la waaw wi mën a nekk rabit ja jaa zaydun